conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo opposition bu Sénégal nelaw yi nga xam ne ci la ñu nekkoon yeewu nañ sa nelaw ya yéen kaay gi di réew mi quotidien moo xëy di ñu ko xamal nee na inondation yi moo yee opposition bu Sénégal ndax toog nañu ay weer yu bëree bëri kenn déggule na ni ki démb gis nañu waa PDS ñoom Abdoulaye Wade génne ab communiqué ŋàññi Macky Sall ci doxalin wi nga xam ne ma ngi koy doxalee ci lu jëm ci wàllum inondation yi niki démb ci banlieue bu ndakaaru janoona ak taskatu xabaar yi yàq na lu mel ni xame yàq na musiba ak mbelengaan ki nga xam ne maanaam mooy Macky Sall journal bi di réew mi quotidien nee na waa PDS ñoom nag li ñuy sàkku yi nga xam ne Macky Sall wax na ne daf koo dugal ci wàllum inondation yi ci réewum Sénégal la ñuy sàkku ak càmbar maanaam ab audit financier loole la waa PDS di sàkku ndax nee nañu 750 milliards yi ana fan lu dugg ñoom sax daan nañuy wax ñi nga xam ne ñooy député ñu daal di convoqué gouvernement bu Sénégal ngir ñu andi ay leeral ci mbir bir mi dafa yomb loola yéen a kaay gii di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko nee na Macky Sall ci ay caaxaan la nekk maanaam nee na farceur la échec lajj cinéma la Macky Sall di def keroog bi nga xam ne ma ngi def ab discours di laqatu ci changement climatique bi te waa ANACIM yàgg nañu koo avertir way nag nañu def ndànk yorinu bon wi nga xam ne moom la Macky Sall yore lu réew mi lu ëpp 750 milliards ñu wax ne moom la ñu ci inondation yi saax-saaxee alalu réewum Sénégal waaye nag tôt et tard Sall ak ñi nga xam ne moom la àndal di saax-saaxee alalu réew mi bis dina ñëw maanaam ñu daal di rendre compte ndax 760 milliards yi am nañu ay xibaar yu wér ne 49 milliards rek la état bu jël def ko ci inondation yi leneen la nga xamante ni maanaam moo des ci xaalis bi jamono ji war nañoo leeral askanu Sénégal maanaam fan la ñu ko dugal Ousmane Sonko ci yéen kaay gi di Vox Populi nee na Macky Sall wurta nelaw ba yandoor sax di gént li nga xam ne maanaam mooy troisième mandat ci bopp réewum ndax loole duñu ko ko maye li nga xam ne moo fi xewoon 2011 jàpp 2012 li nga xam ne moo nar a xew ci réew mi moo a tar ndax am loo xam ne maanaam Macky Sall moom mënuñ mënuñu ko koo may yéen a kaay du source a mu xëy duñu xamal naan ñu inondation yi xaalis bu bari bi nga xamante ni def nañ ko si te tey la wàllu gën a aye bëri na ay ministre yoo xamante ni jaar nañ ci ministère yooyu ñoom ñëpp war nañu leen a càmbara ku si mel ne Omar mi nekkoon ci parti réew mi bu Idrissa Seck mujj ko bàyyi ñëw ci Macky Sall moo njëkk a yor ministère boobee jëm ci wàllum inondation yi ba mu fa jógee Pape Diouf mi nga xam ne moom tim nekkoon na ci parti réew mi na lu jëm ci wàllum inondation yi ak wàllum assainissement ba mu sa jógee ku ñuy wax Khadim Diop na wàllum inondation jóge jox na ko Mansour Faye Mansour Faye jox ko Serigne Mbaye Thiam journal bi nee na ñii ñëpp war nañu leen a càmbar ci 750 milliards yi nga xam ne askanu Sénégal ñoo ngi laaj ana fan la dugg yéen kaay gi de ñoom li leen jaaxal ci mbir mi Macky Sall moo fi nekkoon ne inondation jeex na ci réewum Sénégal ñi yor communication Macky Sall sa pale ba daal seeni mbir jaaxal na ma Macky Sall nag président la boo xamante ni ci pression la nekk yéen kaay gi de la Tribune mu xëy dañu xamal naan ñu inondation yi daan nay jaaxal climat politique bi journal bi de l'Observateur nee na Macky Sall ak inondation yi ak ni nga xam ne moom la opposition bi di doxee soo muytuwulee askanu Sénégal maanaam danañu ko sanctionné bu baax a baax ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la yéen kaay gii di xëy duñu xamal laan ñu liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci usine bi ñuy liggéeyee karo sa sinja jamono ji comme ay jaam ginaaw gerew bi nga xamante ni doon nañu ko gerew ngir laaj seeni prix ni ki démb direction bi da leen a jox ay demande d'explication am na tamit matériel bu fa yàqu boo xam ne direction bi dañoo wax ne ñi nga xam ne ñooy gréfistes yi ñoom la jamono ji nag bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum travail wàllum liggéey ci réewum Sénégal dafa doon na yàcc yàccaaral ci mbir mi maanaam silence complice la si ministre du travail defa yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xamal lan ñu opposition beeg société civile bi ak non alignés yi ànduñu benn yoon ci élection locale yi ñu daal di koy dàq yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien ñu fekk fa docteur Pape Demba Thiam dab économiste international daan nay wax ne réewu Afrique jamono ji amatuñu stratégie économique wax na ci lu jëm ci économie mondiale beeg coronavirus bi nga xamante ni bëri na lum ci faagaagal wax na ci annulation dette africaine bi daan nay wax ana nan la réewum Sénégal wala réew yu bari war a doxee ba mën a moytu nga xam ne mooy bor bu bëri bi wax na ci secteur privé africain ak nan la ñuy maanaam jongante ak entreprise étrangères yi Dakar Times xëy na wax ci réewum Sénégal ak taux de bi ni nga xam ne moom lay nërmeeloo journal bi ne ne catastrophe la FMI banque mondiale daan nañu alerte Sénégal yéen a kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Gris Bordeaux daan nay wax ci combat bi nga xam ne moo waroon a dox digganteem ak Balla Gaye numéro 2 te Gaston Mbengue tëggoon ko te mu génn sama set si wecce na li tax mu génn ci combat bi dafa xam ne suy bëre